ñu toog ak Père Moussa Diop Koné euh, l'ancien international sénégalais l'ancien joueur de l'équipe de euh, Jaraaf euh, Père tey noo jàngatee premier mi-temps bi nga xam ni Jaraaf ak du de Mbour dulalee nañ ko. waaw man nag léegi mu def vingt ans seetaanuma Jaraaf ah. ah <laughs> dama naan bi ma bàyyee ba léegi tey laa door a ñëw quoi. bon ça va à peine ma commencement bi mais à vingt minutes bon remarque bi ma def moom laa doon wax Pape Camara léegi c'est-à-dire que Jaraaf duñ produire kon ko jaraaf war nañ mën a produire jeu parce que loolu mooy étiquette wu jaraaf quoi équipe bi normalement dañu war a mën a jouer mais booy xool dafa mel ligne yi dañu soriyaatoo dañu soriyaatoo trop entre défense bi suñu milieu terrain ak attaque bi moo tax gars yi dominé parce que loolu rek mooy problème bi ak sànni bi te jaraaf moom xam nga du équipe bu sànni xamuñu sànni Euh, nouveau championnat Sénégal xaw a tout parce que tay ñi ngi 12e jour 10e journée aujourd'hui tay jaraaf buñu xolé ñi ngi duggal presque 11 bi à 12 bi euh, est-ce que loolu tuutiwul. wa mais lolu yëpp xam nga liggéey la han ah, liggéey la quoi parce que boy boy xool léegi exemple bu ñëk ba bu football bi comme exemple ñun suñu génération danoon am ben avancement bo xamné uniquement mom pour duggal bii donc ñëpp lañuy liggéey pour mom xam nga alors que légui amatul. ba pare entraîneur yi aussi créé boo xoolee ñoom ñëpp ñoo bokk li ñuy joué ñëpp même système bi la ñu kenn changé wul amul kenn kuy créé fii c'est-à-dire bi mën na joxe ne lii la mais bu ngeen duggee si terrain bu ngeen joué dix minutes joueurs yi ñooy changé affaire léegi loolu moo ko mën a lijjanti. mais liggéey la rek parce que football tamit dañ koy jàng de bu la kenn wax ah, ak loo ko mën mën dafa am loo xam ne dañ koy jàng. football moom dafa am yoo xam ne am na loo xam ne base bi la mais am na loo xam ne il faut nga jàng. bu ñu jógee ci loolu li nga xam mooy liste nga xam ñoo war a dem bi bi noo ko gisee ak CAN bi ñu jëm ni nekk favori doon le tenant du titre. lu ma la ci wax rek wax lu dul dëgg. ëpp na presque vingt ans laa la wax ni seetaanu ma équipe nationale di football. man ma bàyyi football c'est-à-dire daf ma dégoûté woon. Pape Kamalo moo yor tey woo ma sama pharmacie ma ne ma il faut nga dem seetaani Jaraaf ma ne ko kañ dem mais ça fait vingt ans mënu ma la wax équipe nationale lii la ñuy joué mënu ma la wax joueur fa nekk. final bu contre Égypte seetaanoo ko. seetaanu ma ca benn. <laughs> j'étais dégoûté du foot dégoûté dégoûté mais comme gisaan nañ la sur le terrain yaakaar nañ dinaa dinaa parce que man sama problème waxuma sax ñëw fii. mais man war naa mën toog wax ak entraîneur du Jolof li nga xam ne mooy sama xalaat. xam nga waaw nekk ci biti di critiquer wala affaire parce que man aw ma jot boobu. te war mën a gis daaf parce que lu bon bon joué noonu nañ ma ñëw toog wax ko lan mooy sama xalaat parce que Jaraaf dañu am benn marque boo xam ne su jogee ci équipe bi rek mooy Jaraaf nekkatu Jaraaf il faut muy produire du jeu.